te yaakaar naa ne yeewi askan wi dañu def charte déjà yeewi askan wi c'est nee naa leen même candidat yi gañewul ay mbër lañu parce que yeewi askan moo def lu benn parti musul def di filtrer am benn commission de médiation et d'arbitrage maa ko doon présider muy filtrer di xool profil yi di xool mbaa amuloo benn euh, euh, euh, problème ak justice segg boobu parti yu bëri duñu segg yeewi askan wi dafa segg donc ces candidats ay mbër neewul ñu jàppale ko daf ne relation yi état war a am ak collectivité moom dina ko sàmm mu dénku état itam ni ko li nga xam ne moom la collectivité am ci libre administration buñ ko buñ ko buñ ko ci gàllankoor xam nga tam su wootee mbooloo dem ba wax lan mooy njariñu mbooloo ba évoqué mbooloo bi nit ñi boolewoo ci lion yi loolu c'est un message très fort loolu mooy Sénégal bu xol yi àndee booloo am waxuma la Lions yi que conquête bu nekk mën nañ ko gagné mais réew mi dina stable réew mi dina dal te di développement économique bi nga xam ne moom lañ bëgg et social yaakaar naa ne dina yomb. honorable député ku wax euh, parité tudd la euh, honorable euh, monsieur le maire nee na dina taxawal commission boo xam ne dafay jëm ci wàllu genre ak équité waaye leeral na ñu bañ a jël baatu genre au sens figuré jëlee ko au sens propre alors yow lan nga xalaat ci loolu. bi mu wax mooy diggante góor ak jigéen surtout ci politique kenn ku nekk li nga ci def nga am ko ci c'est-à-dire du ñu xañ nit yu baree fam ak yellee fam parce que rek jigéen la loolu mooy sensu genre bi ñu bëgg beneen bi nga xam ne ñu ngi koy yóbbu feneen loolu ñun soxlawuñu ko parce que ci réew mi la ñu dëkk euh, jul euh, kii nga musulman nga wala catholique nga leneen la ñu koy doyee loolu ñun soxlawuñu ko te euh, duñ ko soutenir donc loolu moo tax précision bi précision de taille la li mu wax nag war ko cërale jigéen ñi ba def bureau boo xam ne dafay tax jigéen ñi ñu ràññee leen ci seen taxawaay ràññee leen ci seen koom di renforcer seen koom parce que jigéen lañu ràññee leen ci kaw seen soxlay bopp yi nga xam ne dañ ko am parce que jigéen lañ buñ dul woon jigéen duñ ko am ak li ñu euh, li liy seen rôle ci kër gi ñu ràññee leen ci ci biir njaboot gi ak ci biir euh, dëkk bi ak ci biir taxawaayu jigéen ñi mooy li nga xam ne moo lal parité bi parce que ba ñu nee parité Touba dañ leen ni Touba soxlawul parité ndax foofu benn nit rek moo fay tànn mais lii dañ ne dañuy def parité bi pour que jigéen ñi coono bu mu def ci politique bi mu am payam góor gi coono ba mu def ci politique mu am payam mais ñëw rek nga sonn ku góor gi sonn ñun la yow tàccu rek nga féeteel euh, góor gi la ñuy jox daraja bi loolu moo indi luwaawu parité bi